kaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf xaaf sàll ak bas géy bu ñu weetoon démb ca tribunal ba danañu kurpañante l'observateur nañu ñoom ñaar mu di Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru ak Serigne Bassirou Gueye procureur de la République mbii fa foorante nañu lu rëy ca tribunal ba tendance ante fa amul fenn li yéen a kaay bi Khalifa Sall moo ne procureur de la république dama yaakaar ne da am problème procureur bi ne ko sawaay fii kenn rek a fi am problème mu di ki ngembal alalu mbooloo ba ñu andi ko fi tontul Khalifa Sall ci xët mu njëkku libération mu di monsieur le procureur man aw benn problème ndax ngembalu alalu kenn Sud Quotidien nañu attaque frontale ci diggante Khalifa Sall ak Serigne Bassirou Gueye fa la layob caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Dakar la fa xewoon démb ci diggante procureur de la république ak maire bu Dakar quotidien xëy ko tuddee attaque sale et basse bi coog mbaaloo gu amul bopp amul genn la tribune nañu en tout cas ñoom ñaar dóorante nañ fay doj ba doyal kaddu yi Serigne Bassirou Gueye ak Khalifa Sall doon jokkalanteel démb journal Source A xëy ñu ko tegal ci xët mu njëkk ba noppi tegal ñu ci ne mbir yaa ngay yéeg bay bëgg a yegg les éco nañu procureur de la république mu di Serigne Bassirou Gueye laale ci kawi noppi tuutee desoon mu bujjante fa benn avocat bu cosaanu réew Mali te bokk ci avocat Khalifa Khalifa Sall yi Khalifa mi taqaloon bërki démb Macky Sall ci caisse d'avance bi démb it tudd na ci ba président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade léegi ko ne ko ak Idrissa Seck le témoigné ne leen dolli leen ci Léopold Sédar Senghor ne moom it aw turam ko ci tribunal ba ka mu doon defanteel ci ay wax moom Khalifa Sall mu di Serigne Bassirou Gueye mooy kan anki dina xëy nañu wax ci xëtamu njëkk li mu xam ci moom ak li ay jegeñaaleem xam ci sant mu def ko noonee la ko jàppee aw doxinam wuute lool ak bu Ousmane Diagne mi mu wuutu ne moom Serigne Bassirou Gueye amul benn xaar ma yàlla ak ñi ko yilif ba ñu ko takkalee ndombal tànku procureur de la république ak léegi cil ma xam la fekk baax ñi ko xam nee na ñu nit la koo xam ne lu mu xas ba ne ngëjji dee rekkay tax du ko dagg ñi ko soppul am na ci ñoo xam ne nee nañu moom Serigne Bassirou Gueye magistrat la bu yëg boppam ki nekk ci boppu parti pur moo nekk ci xët bu njëkk fiy joytu ba ci candidature bu Serigne Moustapha Sy responsable moral daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty ci présidentielle yi 2019 lépp Issa Sall waxtaan na ceeg Moxtaala Gay bu l'Observateur waxtaan waa nga yaatoo ci page bu journal bi journal beneen bu xëy ci leneen moo di direct info am na kuréel gu ku jëg politique gi taxawal ci réew mi ngir jële fi Macky alliance pour le départ de Macky la ko tuddee yéenekaay bi nañu ña ko taxawal moo di Moussa Diakhaté bu bokk jële fi Macky Sall moo di ñu amal ci réew mi ay woote yu jaar yoon élection yu àndul ak benn lënt-lënt ñoo ngi na sërit ab mars mu di doxub ñaxtu suba ci àjjuma ji juróom-ñeenti fan ci weeru février parti démocratique Sénégal réew mi quotidien nee nañu ña ca nekk li ñu naan bu ñu xamee foo jëm yegg du la yomb moo leen dal ne li leen rey ba ñu dee mooy Karim Wade mi ñu jiital ba noppi wax ko ba ñëpp dégg ko dëgg-dëgg réewum Guinée Conakry mi ngi ci fitna yëral mu njëkk Vox Populi juróomi nit faatu nañu ca ci ay manifestation yu ñu fa doon def gannaaw élection yi ñu doon amal foofee ca faatu ñëpp ñi ngi bokk ci militant yu Cellou Dalein Diallo am na it juróom fukki doomi aadama ak yu tekk yu ñu teg loxo seeni yoxoog seeni gët teg leen ko ci stade yéenekaay ñu waxtaane wàllu tàgga yaram ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars stade yéenekaay nee nañu goney Aliou Cissé yi dinañu football ak réew réewum Bosnie mu di match amical ngir waajal coupe des mondes Russie 2018 record nañu coupe de mondes boobee am na ci ñaari footballkat yi Sénégal yoo xam ne bëgg nañu caa dem waaye seenug dem ca du yomb ndax yoon yu ñu ko jaaree moo baaxul mu di Lamine Sané ak Pape Ndiaye Souaré waaw turandoo karo bu baax nu muy mel